yëkkati na ay kàddu bokk na euh, ci ni bëgg na ko amal tuddee ko caravane de la liberté jógee foofu ca Ziguinchor euh, ñëw que jàpp na ni combat ultime bi en tout euh, fii la ko la koy koy amale réitère na aussi son gatsa gatsa mi ngi mel ni gars yi li ñuy wax ak di ko jéem a mettre mal ak yenn Sénégalais moom defu ko dara mi ngi continuer ci logique am ak façon bi nga xamante ni da koy da koy communiquer moom Ousmane Sonko Moustapha Diop mais Pape Ousmane Sonko est-ce qu'il a le choix mm-hmm. Ousmane Sonko amul choix mm-hmm. Euh, euh, je crois que dafa toll ci benn niveau boo xam ne benn choix rek la am benn option rek la am. Mhm. mooy se battre ou disparaître. Mhm. surtout li li lii li muy wax nii yëpp c'est c'est c'est exactement ça. question de euh, survie question de survie la. Mhm. waxuma sax survie politiquement bi la mais mais plus loin que ça. c'est-à-dire que il se bat ou il disparaît. maintenant soo duggee ci benn combat maam Birame moo ko mës a wax. et je retiens tout souvent ça. dafa doon wax ne Ousmane Sonko dafa ñëw yaakaar ne. Euh, politique bi mën nga koo changer wax ay programme ak yooyu gars yi discuter ci affaire yooyu. bind ay livre bind ay livre mu ñëw bind livre solution nangam ak nangam gars yi au lieu que ñu débattre ak moom solution ñu indil ko Adji Sarr. Mm-hmm. booba la euh, euh, sa communication commence à changer. Mm-hmm. ses stratégies commence commence à changer. ñu dem di dem di dem ba teg ci procès bii li nga xam ne moo moo ne ci procès bi bërki dem bi képp kuñ ko tegoon ci sa der fii ci ñun ñii ñëpp. tuddal nu la neex. Mm-hmm. ñi ko def da nga leen di considérer comme un ennemi. Mhm. ah bien à partir de cet instant là yow moyens yi nga am mooy li Ousmane Sonko yàgg di wax. Mhm. que ni moom li mu yaakaar amul benn xaritu chef d'état étranger bu koy jàppale. Mhm. wala kenn li mu yaakaar mooy le peuple sénégalais. askan bi askan bi. askan woowu nag li nga li nga li nga li nga mëne euh, combat ak ñoom mooy askan woowu du ñu dem. tribunal nekk ci place su àttekat yi di àtte. Mhm. du ñu soppali ko ay avocat du ñu soppali ko ay policier du ñu soppali ko leneen askan woowu li nga mën mooy la Ablaye Wade daan yàgg def ak ñoom. les procès politiques ça se gagne dans la rue. Mhm. politiquement mooy génn. ànd affronter li nga xam ne mooy la réalité parce que Ousmane Sonko mënul ne dama am ambition nekk président au Sénégal. Mhm. ba pare ne damay toog euh, Ziguinchor du ma fa génnati fii ba 2024. Mhm. ça n'a aucun sens. Mhm. donc man pour man li muy def nii. c'est que il n'a pas on enfin soit il n'a pas le choix wala on lui donne pas du tout le choix. il faut se battre. mener le combat ou disparaître. Mhm. vaincre ou disparaître wala euh, tey jii euh, caravane de la paix la gisoon nañu fi aussi marche bleue euh, est-ce que du moom aussi dafa nekk ci même situation boobu mu jàpp ni que bu gañewul combat bi rek comme ni ko Moustapha Diop waxee dafay disparaître une bonne fois. waaw no xam nga. doon naa fi wax bu yàggul que président Macky Sall opposé wu ak moom dafa jafe. Mhm. li tax mu jafe mooy soo yaroo ne da ngay topp règle yi. mu def la comme Khalifa Sall. Mhm. su ne da ngay da ngay dëgëral comme Ousmane Sonko dëkk bi jaxasoo ba yow sa bopp sax di nga fi def xëy na loo xamante ni am na ñu la ñu ko dul comprendre. oui maanaam du la jox alternative. soit da ngay nekk taalibeem wala nga nekk ennemeem mais Mbaye Ndiaye waxu fi ne Khalifa Sall situation bi yëpp c'est parce que dafa ñëwul ci ñun. Mhm. léegi nag le malheur mooy dañu dem ba jàpp ne affaire bi Ousmane Sonko kese la. ñu bëri jàpp ne affaire bi xeexu Pastef kese la xeexu Ousmane Sonko kese la. mais euh, Pape Matar. tey bu ñu demoon ba Ousmane Sonko le chef de l' opposition. oui élection présidentielle mu am cent 700000 voix. Mhm. plus de cent mille voix yóbbu une liste à des élections liste boo xamante ni turam nekku ci. mais mu mené sa campagne ba liste boobu pour une première fois au Sénégal mu créer ballottage ak le partie au pouvoir. Hmm? créé ballottage ak parti au pouvoir ba ñu naan sax euh, euh, opposition bi mooy majorité. léegi dama ne kooku su euh, ki jiite réew mi parvenir à jël ko laxas ko jàpp. te dugal ci benn prison. ana kan moo koy dese Sénégal. Hmm? su dee mën na loolu su dee def na loolu ana kan moo koy dese senegal bu nekkoon ne Ousmane Sonko dafa def loo xamante ne nii jar na ñu topp ko juge ko yóbbu ko prison xëy na débat yi yëpp du am. parce que c'est un citoyen comme les autres citoyens sénégalais. Mmh. mais bu ñu la nee. Mhm. Karim Wade jaar na fi. xalifa Khalifa Sall jaar na fi. Mhm. nga dégg le président de la république lui-même mu ne am na dossier yoo xamante ni maa ci teg sama kuddu. Mhm. ma ne léegi sax xaajatul ci kuddam xam naa dajay tëdd. ñu ne la tey jii nii am na ñu far ak moom ñu fi def scandale yoo xamante ne nii mënoon na sax suuxal économie Sénégal. ay cinquante milliards de faux billets suñ eh. ko dugalee ci économie Sénégal mën na nësax mhm. ñu ne ñi def loolu yëpp ñu ngi fii di taxawaalu donc nga jàpp ne régime bii kat justice taxul ñoru leen parce que bu leen ñoroon am na dossier yoo xamante ni suñ ko déggee mhm. dinañ def de sort que ñi ngi ciy topp wala ñi ciy tudd ñu woo leen ñu leeral léegi bu boobaa ah ñu ne créé nañ ab dossier comme nuñ ko defee Karim Wade comme niñ ko defee Khalifa Sall def nañ ko Ousmane Sonko léegi bokkatul. bu boobaa du ñu yaakaar ne Ousmane Sonko ak waa Pastef rek ñoo perte. mais ñun ñi si des nag. parce que ku parvenir ci ay caaxaan. ba jàpp ki nga xamante ni moo classé wu troisième à la dernière présidentielle kooku amatul kenn ku la mën a opposé wu. non non amul kenn ku la mën a opposé wu. bu boobaa est-ce que dinañu continuer di wax naan ñun ci démocratie la ñu ne. dina jafe de. Marine Le Pen. oui ak seen parti euh, le Front National. dañ daan tenir discours yoo xamante ne nii à un moment donné sax dañuy enfreindre les lois françaises mm-hmm. Mm-hmm. kenn mosul xalaat ne danga leen di comploter yóbbu leen prison pour ñu noppi kenn xalaatul mosatul xalaat ne da ngay dissoudre seen parti am na sax un problème avec avec les banques. mango taxul ñu dem ba amatul possibilité leb foofu mu dem Russie di lebi ji foofu xaalis mais lebi xaalis Russie sax. taxul ñu ne ko financement d'un pays étranger comme li ñu doon jéem a ja euh, wax Ousmane Sonko. Mhm. taxul kenn wax ko taxul kenn ne dañuy dissoudre partie bi ñoom ñoo toog ba mu neex leen ñu ne pour polir le parti dañuy changer tour bi. d'accord. d' accord d' accord en waxtaan wi amoon na solo bu baax a baax di leen jaajëfal yee ñuy doon suivre ci page YouTube Walfadjri ku ci mel ni Lamine loo ak waa marché Sokone fële ca Kaolack fàttewuñu Adrien Gomis ak loo euh,